am na ci falu yoo xamante ni nii da nga koy fal waaye du neex na nga ko bëgg na nga na nga bëggee mu am maanaam na nga bëggee ñu palee la ko maanaam cat da la ciy jiitu waaw waaw léegi nag boo bindee suratul fatiha fatiha bind leen 4444 mhm, mhm. bind xulullaahuma 4444 4444 xulullaa xulullaahuma maalikul mulki nga bind ko 4444 bind qul illahumma malikal mulk tuutil mulka man tashaa waaw wa tanzi'ul mulka mimman tashaa mhm. nga bind ko boo ko mënul nga jox ku la ko bindal boo ko mënul nga jox ku la bindal ku bindal c'est important nga bind ko 4444 mhm. mhm. nga bind suratul baqar boo ñëwee ba ca fa sa yeg ko humullahu wa saminu alim bat boobu fa sa yeg ko humullahu wa saminu alim nga baamu ko 4444 àggale saar bi ñëw ci maida boo ñëwee ba ca wallahu yaxsimuka minan nas nga baamu ko 4444 yeggale saar bi da nga koy bind waaw dem ca alimran boo ñëwee ba ca asbunallahu wa nihmal wakil nga baamu ko 4444 àggale saar bi kon mhm. ñetti saar yaa ngoo waaw léegi nga bind falaxi 777 bind naa si 777 wutal ndox yi may wax ndoxu teen ndoxu ndoxu géej mhm. ak ndoxu robinet mhm. nga boole ko ak parfum misk zaxfaraan maaul werd nga di ko sangoo léegi nag bala nga koo sangoo fexeel ba génn sarax bu diis nga génn ko billahi lazi la maanaam sarax bu moy lan sarax bu manam bu la nexe nga jënd tonu ciép nga sarax ko bu la nexe nga jënd nak nga jënd nak nga sarax ko maanaam fi sa doole tollu waaw nga xamanteni li nga gëna bëgg nga génne ko mais bo amul yooyu nak boko amul nga gënne ci sa alal li nga gëna bëgg nga sarax ko jërëjëf jëf légui nak nga diko sango sangoo boole ko ak sel alcorane lu selul bokku ci nak bokku ci bo hmm. selé sunu borom dana la dimbali di nga ko ubbeeku ko gula yéem man maa la wax ni hmm lolu ci sangati la bokk na ci sangat yi tamit junni faatiha mhm. moom boo ko bindee it moom di ko sangoo sunu boroom dana la ubbi ubbi gula yéem junni faatiha junni faatiha waaye nag fexeel ba yow du ànd ak dara da nga koy bind waaw maanaam fexeel yow ba bindkat bi na bëgg rek xam nga sax nga dem ci euh, li may li may reetaan léeg-léeg dangay léeg jekki-jekki nit ñëw bett la jox la alal ju bari ne la ñaanal ma loo ma ñaanal baax na mhm. kooku boo koy defal day mel ni gaynde goo goo goo fekk mu tëdd nga dóor ko. Mhm. bu jógee ci sa kaw lay dal. wallaahi loolu day am. Mhm. am na ñoo xamante ne nag bu ñëwee dañu naan la euh, comme ni exemple nga ñëw ma ne la ñaari junni nga may fay. nga ne ma laay ndax xanaa du yow yaa toogoon ci télé bi di maye di maye secret yi. Mhm. bu ma mayee moom bu la neexee nga def ko waaye ma liggéeyloo nag ma fay. waaw ndax dëgg la wala de. dëgg la loolu mooy loolu mooy àdduna. waaye nag yow bu fekkee ni man miy liggéey dama am ay employé am ñuy bind am ñuy nangam am ñuy nangam léegi yow ma nga bëgg lii ma wax léegi nii ma bind ko jël ko may la ko mën naa ko waaye nag am na loo xamante ne bu fekkee dañ ko bëgg defal junni nit wala ñaari junni nit da ngay sonn mais ñi nekk bitim réew bëgg këyit këyit xam ne ñu ngi sëy seen sëy yaa ngi def kalaj kalaj kalaj kalaj mhm. ak jigéen ñi nga xam ne toog nanu mhm. euh, amuñu borom kër mhm. ak jigéen ñi nga xam ne bu ñu duggee ci sëy bii cat jàpp leen ñu génn ci dugg ci bii cat jàpp leen ñu dugg ci génn ci dugg mais mbir mbirum sëy pour sange ko ak xale yi nga xam ni te nañ seeni waajur ñii ña ngay dorogewu mhm. ñii ña ngay tux yàmbaa mhm. ñii gis seen i wayjur gisatuñu leen mhm. xale yi nga xam ne të nañ seen i wayjur xale bu të ak sëy buy karaj ah ak jigéen bu bëgg am borom kër ak góor boo xam ni ah, euh, soxna su ma am tàqalikoog moom lan ngay ja baaxee jaam ñi pour loolu loolu ñu toog ci waaw léegi soxna si nga xamante